Aïcha Daabay nuyu naa la. maa lay fay mbay. ah yaa ngi si jàmm. maa sant yàlla. naka moom c'est la première fois defe naa may jàkkaarloo ak yow. Mhm. ah ñu ngi ko déglu si benn wàllum événement boo xamante ne dégg naa def ko première euh, saison bii mooy deuxième bi. ah xam nga première donc c'est gisoon résultat moo tax doo tollanti ko. waaw xam nga mbay man ku ma xam-xam ne liggéey rek laa bëgg. Mhm. te boo xoolee xale jigéen ñi toog. Mhm. ñii ñëpp liggéey moo leen tax a jóg. donc man je ne personne pour jiite leen waaye tamit. J'ai toute l'expérience expérience pour mën des def foire mooy maanaam yàgg couvrir ay foire yagna foires, def ay foire yàgg naa bokk ci foire kon ba yàlla dimbali ma man may organiser mes propre foire kaay ma jaay la nag ku cette fois-ci nous ngi amee fii ci e s daaw ñu ngi ko defee place du souvenir li ñu amoon ci nombre de personnes barina na xajatuñ fa moo tax ñu indi ko 6S, e le 4 le 5 le 6 ñu ciy sargal nag ku baax. sunu yaay soxna Baali Muntaxa. lan moo waral sargal Wa sargal bi boko li ko waral mooy euh, soxna Baali Muntaxa ku ne xam na ni référence la. ku ne xam na ni icône la. ku ne xam na ni c'est une très grande dame très influente. Bonne influente nak, euh, wax bokkuma ak sunu genre influenceuse yu ndaw yi c'est une très grande dame bu nga xamante ne ci côté bi muy elle est très influente mm-hmm. donc raison pour laquelle ñu dem jëli ko def ko sunu diko sargal diko ko delloo magal gi di ñew ku ne xam na ni magal c'est dans un mois lu ci dess bëreetul ñuy wajj magalu Serigne Touba gi kaay ma jaay la ne pourquoi pas mu wajale ko sunu mbokk murid yi mhm. pourquoi pas jaan yeeg laay nii xaadar yi mhm. ñëpp si lañ bokk mhm. ah est-ce que soo ko tënkee foofu rek est-ce que ñeneen ñi yeneen tarxe yi dañ ñëw bañ a ñëw Serigne Touba ñëpp a ko bëgg Serigne du murid yi rek ko bëgg tubaab yeeg naar ya ca Amérique sax bëgg nañ ko Serigne Touba Serigne Touba ñëpp la murid yi kese moomuñu ko ñëpp a ciy dugal seen seen loxo rawatina nag man ma doon taaliba sëriñ Fallou kon xam nga bu ñu wootee kaay ma jàll ci màggal bi yaakaar naa Serigne Fallou day defar lépp fond bi fu mu jógee waaw fond bi nag euh, initiative bi mu ngi jóge ci man man Dabaye commerçante laa liggéeykat laa ñëpp xam nañ ma ci jaay jënd ak jaay donte maa ngi si Sénat bi di publicité ak yooyu donc ma ne pourquoi pas ma rassembler xale yi ñu def benn foire xool fu ñuy jaayee par ngoon xam nga nit ñi am fu ñu dem jënd jee parce que nit ñi dinañ bëgg a jënd parfois du ñu mën a connecté wala du ñu am temps mais dañuy bëgg ay endroit yu mel nii wala ay ay ay

maay done bok ci sen foire. di len organiser di di leen sinaabal. man après la la ñeu par la suite la ñeu mais pour foire fi je pense que ni man ma fi ñëk indi vente privée. def ko foire nak fas ko rek chaque année ñu rek fi inshallah ah gis nañ ne ay xalé yo yoo euh euh samay xarit sax ki won nañ ku mel ay ñom bébé si ay ñom ki samay xarit yo xamante ay mo mami euh euh tombé wu na ñeu ak yow dat mais dafa mel ne ñoom dañoo arrière. lan ah lan waaw. loolu yëguma ko yëguma ko man déggoon naa ñoom tamit dañuy dem foire parce mhm. que. xalé bi ñëwoon na ci man une mm. fois ak man dafa bëgg def foire mm. mais je savais pas que dañu arrêté seen foire mais foire ku ne mën nga ko def mm. ku ne mën nga ko organiser parce que lu yaatu la jënd ak jaay la rek amul concurrence amul kii moo def lii amul kii moo def laa ñun ñëpp mën nañoo organiser foire pourquoi pas day gën a ah. neex ah, lan moo tax ñu arrêté dañ laa jox cër boobu dañ ne demal soo paree ñoom ñu dem wala lan lan moo je sais pas mm-hmm. yaa ma ko yëgal xamoon sax ne dañu arrêté mm-hmm. loolu yow yaa ma ko wax léegi ah, parce que gis naa pub yi dawatul ak yooyu ok. ah bon. Mhm. je sais pas man en tout cas xam nga dama concentré wu ci sama foire ba duma meuna mën gis lu xew ak lu xewul. Mhm. donc je suis tellement occupée. Yaw yaa ma expliqué ne foire bi amato. Ah, ah ah waaw parce que surtout man kii xaw ma nag élué parce que dama don xol yeen ñaar euh a ko yéen a ko. sumbandoo ndax yéen a bokk. non non non bii Dabay Events la. ah bii Dabay Events la. bii Dabay Events la parce que damay gis nit ñi ak nit ñi yeen a bokk ay nit. non non bi da bay Events la. ah ah da bay duma fi jugé té waxuma sama digënté ak ah, sa xarit Mbathio kérok jubóo bi neex na maa ngi gis site yi boobu di ko reprendre ah, xuloo bi yàggoon na ngeen jékki

mu jooy ma nax ko waaw sama xarit la àdduna amul solo du dëgg. commentaire ñu ne yow yaa sukk baalu ko ak waaw loolu yëpp amul solo. maa sukk ah, ak maa ko c'est pas important c'est pas important xam nga lu am importance mm-hmm. juboo nañ sant yi waaw kay. est invité nga ko woon invité nga ko. mooy sama invité d'honneur. Uh-huh. mooy sama invité d'honneur. ah mooy sa invité d'honneur ah, mooy sama invité d'honneur. ah dafa am dafa yor essence dafa da nga koo moom day ñëw jënd si rëkku fii ba mu nooy. Uh-huh. daa di play back réew mi yëngu. Uh-huh. ah loolu dina neex. na xale xaar Mbathio day ñëw ci foir bi. incha allah rabbi. la kañ ba la kañ ko. le 4 le 5 le 6 août incha allahu rabbi. foofu toj. Amba si nuyu naa la. Mbaye fay naa la. tey ma gis la si euh, événement bi nga xam ne moom la euh, euh, Daabaay doon def. Mhm. te da ko def daaw ren defe naa mu tollanti ko. Mhm. Mhm. tabaarikàlla macha allah nee naa lépp lu jigéen di woote ma ma ciy bokk. ndax tabaarkàlla macha allah lu góor naan balaa may tëdd def jigéen def na ko ba tëddi. may kontaan ci Dabaay. di ñaanal ñun nga xam ne ñoom ñun la yàlla boole Dabaay. ñu bokk ci vente privée bi. képp ku fi ñëw. soo ñibbi yàlla booree ci loo fi ñëwee. képp ku fi indi say bagage mm-hmm. yàlla ko yàlla jaay mm-hmm. ba boo demee boo lëggee bu ko damay woote waatee nga ñëw bokk ci mm-hmm. loolu laay wax noonu uh-huh. uh, uh, daaw uh, da nga bokk daaw bokk moom dama uh-huh. jàpp mais ren man buuxante ren nga buuxante waaw gis bëgg nga see gis ay incha allah bëgg naa cee gis yokkute bëgg naa ci bëgg naa cee gis clientèle yu bees bëgg naa cee kawe sama sama njortu daal bëgg naa mu kawe ci Mame Bassine coow li bëri woon na si yow trop ñu naan Mame Bassine Mame Bassine ñu jigéen kenn ji déggatu la nga arrière foo nekkoon ba maa ngi ci ñaw bi maa ngi woon ci ñaw bi tabaarikàlla macha allah maa ngi woon ci liggéey bi waaw di bëggal jigéen ñi rek man ci jigéen ñi liñ bëgg rek ci loolu laa def bruit boobu man baa si man baa si jékki-jékki loolu moom ma juddoo ba léegi maa bruit am waaw te ragaloo ko mais da doon jàmm rek mais lan la foo nekk foo nekk non maa ngi si daal soo maa ngi def yu baax maa ngi ci dëkk bi la wax fu mu ne nii il faut nga boole ma ci pour mu neex léegi lan moo tax nga arrêté non non arrière ma ne maa ngi ci biir foo nekk wala maa ngi gis maa ngi ci biir foo nekk ma la si affaire yi xam non fekk meeg loolu ma dama ko mën a sama yaram moo fecc fi fecc moom ma ko bàyyi léegi def na ci loo ne jële ma fii jële fii mun a maa ngi nii jële nii kii mooy mun a جانت بوتي تبارك الله نيوم نيوب محمد تاني دور وارا نيجي رك لينا على لغور نان سما يو ودف فك تاني نيجي عند كم نكبر يوم تك كون نيجي نيال لب نيجي فيني يالنا كوي سمي كوب نيجي سير يالنا نكو يالنا جوك تدار جو ينتي بس الله لاو نفس نك نك نيوم تبارك الله نيجي رك لينو خام ها بعدين خلي يجي عني يدور كيلو باخ نيو يباخ يفشل واو واو خلي جلا ayca ñëwal dafa ni maa ngi ko ay kooku yow dawal dawal vidéo ah, benn question ay man fu ma jëm ak mbay. ayca ah, ah, kaara yow. Euh, lu tax gis nañ ci fecckat yi fecckat yi ku bàyyi da nga dem taas bi wala nga def leneen. lan moo tax taas yi génne woo leneen génne. aywa mbay maa ngi ci ñëw bi. xam nga sama liggéey dafa si charge ba leneen xaju si. Mhm. tabaarikàlla sama liggéey. moo si charge ba leneen xaju si. Mhm. maa ngi ci ñëw yi xale yi xam nañ ma. xale yi bëgg nañ ma maa ngi sant yàlla te maa ngi ci gis sama bopp may ñaan yàlla yàlla yokk ci loolu laa nekk mais si da nga gis keneen ak keneen day gay mi ngi si taas bi keneen non loolu lépp mën naa nekk à tout moment lu ne mën na am à tout moment lu ne mën na am non ñooy jël whisky may wis moo tax xam nga whisky may wis moo tax mooy bëgg a jaayaale whisky may wis moo tax sama whisky xoolal sama whisky Samba Samba maa lay woo damay def émission maa lay woo mbay loolu nga doon laaj léegi bu la kaatee boo ñëwee di nga gis lépp di nga fekkee lépp incha allah. da bàyyi woote lan moo la si découragé ba nga bàyyi ko carrément. non non découragé parce que sant naa ci yàlla ndax ñi ma xam ñëpp ci loolu lañ ma xamee ah partout dans le monde découragé wu ma mais dafa am loo xamante ne ndax kenn du ko ñibbi. comme dem nañ ba suñu raq fekk si si dañ leen di xajal ñoom itam ñu jël seen wàll pour ñun ñu dem génnaat feneen ak leneen. te ñu ngi ci ñaw yi tabaarikaale ñi xam ne ki nga doon feccal yaa ngi yéen a ngi déggante ak moom. bari na ma daal yëpp laa feccal. am naa ak maa ngi wax ak ci ñaw fi mu toll nii moo tax ci sóob maa ngi ci ñaw bi. il maa ngi ci ma cee gis maa ngi baaxee. day vidéo moom maa ngi ci jàmm bu baax ah, daaw bokkoon nga daaw naa waaw ah, moo tax ren moo tax nga gis sama bopp surtout après après vente moo daax parce après vente soo defee say carte visite nga jox ko nit yi ñooñu woowaat après vente après vente moom macha allah bu baax mm-hmm. ñu ñëw ñoo xam ne jënduñu. jox naa leen carte après vente euh, woo nañ ma commandé. Mm-hmm. lan ngay lan ngay gën a yëngu si sa vente. man nag saak daal ak accessoire ay fulaar ay jaaro yooyu laay gën a yëngu. sama vente. Mm-hmm. ok ah, ah, ah, lan moo la gë euh, euh, foire yi bëri na lan moo tax nga taamu si bu dawal. da bàyyi da bàyyi lu ma taamu ko. Dabaay de man peut-être moom moo may ko ma soo commencé jaay moom dafa ay publicité wax dëgg yàlla temps yooyu temps Covid bi la yàgg na trop. temps Covid bi la moom defal ay publicité affaire yooyu après am xawoon naa stand ma recommencé mais loolu moo gën a tax xamante bi xamante vente yi bëri na mais macha allah mosoo bokk yi bi daal macha allah dama si gis sama bopp moo tax ma ñememaat bokkaat ren jaajëf merci beaucoup envoyé ma ko envoyé ma mais chéri xool yow déjà yéen suñu biir rek dañuy jaayante de li ma damay wax ba wër la dinaa fexe yow ba nga jënd te loolu mooy jaay mais bul mel ne comme madame Tall toog rek. dafay. moo ngi nii. yaa ngi am sens. ah comment mun a jaay ma ko jaay ma ko benn wala wala benn yoon je suis désolée mais njaay mi même bu ngeen indi ay xale. leen xale yu pànk yu ma a jaay parce que na ñoo xam ne duñu ay jaaykat gaa waaye yàlla dénk na la ñu mën a jaay wala ngeen ko benn artiste saf xorom moo ne tey bu taxawee wala mu taxaw su mu taxaw bu nee sunu yóbbi sunu yóbbi sunu yóbbi dañ ko commencé ak yàlla ba ne du man bàyyi ma waaw dama lay wax rek waaw mooy liggéey de bàyyi maa ngi tudd yéen ñëpp di leen wax ne dañuy préparé benn vente le 4 le 5 le 6 au 6 pavillon Sénégal man maa ne ñas di maa ne maa ngi jaay damay jaay lingerie décoration ay plateau am naa tamit ay robe makeba choix pakalaay ak yeneen ak yeneen lu waay bëgg rek ci baax su seree la baax incha allah yoon nañ xaar yéen bi ngeen ñëw man damay bu xool corona bi. ñii bu leen bàyyi bu leen bàyyi xel ñun de ñun ngay wax yow yaay kan waaw c'est bon. man de mais dama gis ne dañuy bàyyi xel caméra bi de trop. mais nañu waaye ani laay laay lay xaar. dalam bi daal. commencé commencé nga nag te waxoo gu ma nag maa si yow tamit. ay boro waxal rek boro. asalaamaaleykum. maaleykum salaam yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci doon ak santam. man c'est Astou Diagne. ñu koy fashion day waaw foofa toj.

ak cuuraay yeeg lépp daal maa ngi ak jesner ak jesner waaw gis nga loolu di ah. si coton góor yu oyof yi man la ñaw yi rafet yi man la Antalaba FM dégg nga Rêve By déjà maa ngi nii borom pédicure yu baax yi borom soin de visage yu baax yi borom massage yu baax dama nar a indi siis bu doy waa ci vente bi defal leen ay pédicure yu normal fausse ongle kanam yu bellu dëgg ne ko maa ko man déjà pédicure dëkk bi ba mu daj d' na ni man maa daan pédicure Sénégal maa mi yéen na ah mbay. mais loolu pour ñu mën ko am il faut ñu teel a jóg ñëpp jóg sept heures. kuy defal defal kuy puudar puudar. Mm. loolu nag teel a lan ko jóg jigéen la xam naa ne mm. ñëpp am nañu retard ma commencé ko ci man yegg si wu ma trois heures pile lu dëgg donc ñu fexee góorgóorlu ci point boobu ñu fexee teel a yegg si.

parce que tamit nag benn nit kese la bu dëgg am na ci ñu defee commune bi di Vassal yoonu nekk di ma ne ma chéri lu ñu wax ci groupe bi léegi am na lu ma dégg mais comprendre na waaw dama mat yàlla dama ne ma ñàkk ma fay la bu dëgg bëgg naa liggéey dara waaye ñàkk ma fay la ndax mënu maa wax ak euh, ah, ah? ah? ah? waaw Kaari bu dee boo ñëwee bi dee wax dara jàmbalaay Kaari fu ñu tourné pour dem Dior premier koñ à droite bi. maa ngi ci ñoom.

foire te ci ñaan yàlla defaat suñu troisième édition mu saf saf ñu tëbb foire bi deuxième édition bi ba mu mokk rumbax dama doon yokk dama doon yokk salaamaaleykum ñu ngi jël sama life design bi ñëpp ma sama tur c'est Aram de la marque Aram Glow Skin tout ce qui est bio et naturel 100 pour 100 made in Sénégal so damay incha allah je vous accompagne le 4 5 6 ci Dubai Events avec nos produits Aram Glow Skin. xoolal ñun ngay wax taalal ñun ngay wax li ngay def ñun ngay wax xam nga fii ñu nekk ñëpp xam nga xamaguñu ko ngay wax papier la dafa tooy nangoo ko génn maanaam ku dégg xam ne lu neex lu baax lépp lu jëm ci kër dra yu baax gaam cuuraay bu neex senteur yu baax a baax accessoire yu rafet donc dañ koy dëbb dëbb sax dafa dafa feebul dama xam ban moo laa war a laa war a employé yàlla ñu yàlla may ñu yëg jàmm ak salaam yàlla may ñu yëggali suñu yéene yéene bi mu am ci bant bi yàlla ko ci yàlla may ndam ñu ñëpp ko li nga dëbb nekk yóbbu ay parfum lépp luy baax baax senteur yooyu yëpp dama koy def de de nga wax dina ko sama nga waaye ñun ñëpp incha allah ñun ñu gën a bëri vraiment ñu yokk ci sa pays ak snap yeeg yëpp ak statut ñaan rek mu bañ a taw. fii du yomb man maa ngi lay ami madame Cissé borom yàgg laa moo dëbb bu bu chaque maa ngi jaay euh, ay tissu yi cuuraay lépp lu jigéen soxla dama ko jaay mën faak lépp ñun ñëpp ñëpp dëbb bandi ko moom rëq ko ba mu

ngeen jaar boutique ba wala ngeen jënd fii rek aw seen. merci beaucoup c'est bon merci. li ci des mooy dama doon wax que daal yéen a créé seen ambiance bu da ngeen mën a créé benn scène boo xamante ni pour défiler ñu am lu ñuy jaay. waaw loolu aussi mu ngi ko ci doon doon couturière yeeg ñooñu seen ñu jéem a def benn samedi bi benn instant benn ngoon bu ñu défilé loolu aussi dama ko fàtte woon mu ngi ko mu ngi doon tool yi wala ci seen i seen i seen i seen i seen i accessoire moo xam ci laa koy doog a def parce que foire yombul ñi yàgg